dikkati na ana ku ne woon ko aye wal sa moome tribune yéen kaay nan conseil constitutionnel yaa moome wala yaa bindoo ne tama ña lay tëggee fi mu bu ne lanket ko di jee naan parti démocratique sénégalais moo roofub xëtam xaaj fa nga xam ni fa lay méttee mu daal di na fa rip daal di dëbb dóor dal naam déet yéen kaay bi ne ma en tout cas ubbi na ab enquête parlementaire tribune yéen naan kon ma xamal la conseil constitutionnel ma moom la ñu tuumaal diggante ay naxee mbaay mbirum njublang waaye tam ay ger ñoom kalaame conférence bu président yi ñu daal di koy convoqué ngir nag groupe wallu la mu daal di sàkku ñu daal koy daar daar teg ci table bi waxtaane ko waaye tam enquête ba daal di door lu mu gën a gaawee yéen kaay bi média bi naan man moom président Macky Sall ci boppam dafa sàkku majorité parlementaire bi ñu daal di nag jàppale parti démocratique sénégalais ci bëgg-bëggam gii moom Karim sax ma ne la dañ ne ko delsil Sénégal ñibbisil waaxul Karim may sa wàdd yokk say jéego ñëw fii soobu ci bi nga xam ne say gaay soobu nañ pour lire l'essentiel naan tey l'enquête ba commission d'enquête parlementaire ba ay bu juddoo deesu ko ngénte waaye daa ngeen dégg keteme ci juróom fukki junniy parrain yoo xam ne jaay nan ko ñeenti millions ak téeméeri junni ay informaticiens yoo xam ne dañ leen jëndee juróom ñetti millions beneen candidat boo xam ne moom it beneen nationalité la am ñu daal di koy walidé yéen kaay bi naan man Amadou ak Akile ak Bougane Gueye Dany ñoom dañoo jommi turbine yéen kaay naan man Bougane a ngi waxi balde l'enquête naan kon ma yëgli ba pare parti démocratique sénégalais mani la xaaj ceeb mi rëy na dóor wa dal na te xàcciw ñu jëmale ci kenn ku dul conseil constitutionnel en une soirée ancien député naqarlu anam wi nga xam ne procédure bi mi ngi koy ame ay àndandoo Amadou Ba ci boppam daal dina gaa yi nga xam ne yéen nekk ci ginnaaw lii génn leen xàmmee nañ leen jaruta nëbbutu jaruta làqatu ci ginnaaw kenn fi mu ne nag la ngeen bëgg moom moo di dàq élection yi waaye du fi amee le quotidien le quotidien naan kon en tout cas Karim la ñu méngale ak loxol Karim bi nga xam ne dañ koo weñ ne koo laggal génnaatal ci bokkub élection ci réewum Sénégal yéen kaay bi nañ ci cib lanket te tey ci suba mbiri dina door ba mardi taali le point ak ci naan kon mbaa xam nga ni coow li am nay audio sax Walf Quotidien naan kon mbaa du parti démocratique sénégalais ma ne la dafa matul mbuus ba giir yàqi mbuus lii mu nar a def lan la le témoin yéen a kaay naan kon bëggub commission d'enquête parlementaire am am ko rek te fi mu toll nii mbir maa ngi nar a laal ay magistrat yu mag ci conseil constitutionnel bi bés bu l'enquête bii dooree njaw desuwu xam bin bés bi le jour naan kon mbaa ay somnifère la leen sàll jox. EDN info groupe WhatsApp la 76 493 89 04 abonnement la leen Sall jox nag ngeen di nelaw moom candidat bi di campagne xam nga président Macky Sall opposition bi dem na fa sàkku ci moom ñu daal di yéeraat bi moom président Macky Sall déglu leen ba ñu wax ba géex Sall génnub communiqué naan leen conseil constitutionnel lu mu jëlub dogal aw ma ca kàddu ne leen élection yi daal dinañ koy tàmbali ba noppi yëggali rek 25 février bi ma ne la dugg ci mbañ gàcce yi wote communiqué xam ne ñooy recréer fa demoon waxtu woowu nga xam ne Sall def na communiqué tuuti conseil des ministres dafa daal di am moom Amadou Ba ci boppam fekkewul conseil des ministres bi moom président Macky Sall nag tey jii woo na conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar le témoin yi ne kaay naan kon waxtu woowu moom Amadou Ba ma ngi ci tournée nationale moom Amadou Ba ma nga Europe di sàllar ñiku moom Amadou Ba mi ngi dalloo ay bâtiment ak i mbir candidat bi mani la yi di werante moom ma ngay campagne docteur Momar Thiam expert en communication ni bu ko jàppee noonu la Amadou Perdon ci temps moom lay fas yéene dabuwaat les éco yéene kaay ne ko déet xamu leen li xew démb ma ni la conseil des ministres Amadou baa ngi fii Sénégal te bokkul ca conseil des ministres ba luy problème bi tribune yéene kaay naan kon ci commission d'enquête parlementaire bi ci bu sottee lu rëy ci réew mi 24 kaay naan kon ak lu mën a am moom président Macky Sall nee na dogalu conseil ba moom mënee su ca defub recours kon nag présidentiel am par force laas yéene kaay naan kon moom assemblée nationale daal démocratique sénégalais laaj ba samp moom moo di mbaadu nag du nu seeyal conseil constitutionnel te ci coow lii laas xamal ma ni APR ak parti démocratique sénégalais dañ caa lëkkaloo ba maar day taali luy problème bii le point ak ci naan man lu ngeen réer réer fàttaliku leen diggante Kéba Mbaye ak conseil constitutionnel ci jamonoy 1993 ba Kéba Mbaye ma ne la tekki ndombal tànkam teg leen foofu seen loxo en attendant événement yi di déroulé tribune yéen kaay naan ko ci réew mi te crise ci boppam moo am diggante pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire ndax nag bureau assemblée nationale ci boppam bu nangoo ubbi enquête te enquête googee bu mbir yi sottee ñu war ko riig ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllug yoon te ñu ne ci wàllug yoon jiite wunu enquête googee te enquête ba ña ngi ko jëmalee ca ña nga xam ne nag ñoo yor yoon mbir yi jaxasoona rëbëjoona te dina jolli moom bugaan géy dani ci yéen kaayub des médias bi naan président Macky Sall sab communiqué dégg nañ ko waaye tuuma yi nga xam ne teg nañ ko processus électoral bi processus bii nga xam ne nee ñu dara jaaru ci yoon lépp ay naxee mbaay la bugaan naan kon xam nga dew ma wuy ji président Macky Sall maa yey ndax ba mu dégloo ña dem ba ñu wax ba nuppi moom Sall def na leen mënuma ci dara conseil bee dogal boobu boobule conseil moom parti démocratique sénégalais tuumaal ko ay ger te tey jii xeexu parti démocratique sénégalais fas yéene doon sunu xeex ndax nag tuuma gi rëy na ci réew mu mel ni Sénégal te bu nekkee ni tuuma yooyee dëggu na dees na saytuwaat ma la nees ba jàllale yenn ci candidat rëkkale nag bugaan ne xeex bi day wéy rek libération yéene kaay naan kon Ousmane Sonko yi ca kaso ba mu nekk gisoon na li nga xam ne amoon na def ko ci vidéo moom Ousmane Sonko daal di tegoon ay feemam ba ay candidat mën a jàll te naan leen bés bu wax jotee danaa wax kan ci boppam ngeen war a sànni li xob Sonko naan leen lii lépp laa la wax gisoon naa ko waaye feem rek laas yéene kaay naan kon ma nga kaso waaye mi ngi bokk ci débat politique bi Sud Quotidien naan kon juróom-ñett ci candidat fas nañu yéene kenn ci ñoom bu l'observateur naan kon ku jot dagat baatu askan wi lii mooy jafe-jafe ñaar fukk ci candidat am na ci ñoo xam ni moom ca démbuk Sénégal xalaatuñu woon sampi ndënd turbine yéen a kaay naan kon ràññee dafa baax diggante politicien de métier ak politicien de mission am na ñoo xam ne ma ni la politique bi métier lañ ko def te ku ko def métier sa gafaara tax a jóg am na ñoo xam ne moom joyanti Sénégal mooy seen bëgg-bëgg xam ne ñi fi nekk defuñu ñu xanaa kay matuñu mbuus di yàqi mbuus ñooñee bëgg leen faxas fas yéene defar Sénégal sénégalais yi nag ñooy xool ci ñaari catégorie yooyee kees tabb le soleil yéen a kaay naan kon en tout cas président Macky Sall mag nuy jaaral yoon ñun askan wi te naan ñoon yoonum njub waaye tam maandu bañ a xastee ŋàññe mooy wi gën léefo yéen kaay naan kon boobu ñenn ci ay ñoñam ña ngay defi jéego ku ci mel ni duudu ko def ko ca Japon ci lu soxal PAP 3 2024 2028 plan d'investissement bi nga xam ni moo gën a rëy ci taarixu réewum Sénégal jëm ci wàllum koom te mu nekk ñu wari ko fa yóbbu na leen ba Japon Japon googee ku ko xam-xam ko ci ñoŋ te ñoom pare nan ngir jàppale Sénégal ci politique d'industrialisation inflation bi waaye tam joyanti koom gi ndaw yi it mën ci gis seen bopp ci wàllu xëy ci croissance bu jóge ci juróom gun tombal ñett yegsi si juróom-ñett bun tombal juróom ci deux mille vingt quatre deux mille trente cinq Sénégal nekk réew woo xam ne investir ci mooy ëllëg stabilité politique bi nga xam ne am na fi tax ba mu sañ nekk partenaire stratégique bu Japon fii ci Afrique sowu jan waaye tam ñoŋanteem ci wàllu démocratie leadership bu président ma ci sàll lii it waa Japon rafetlu ko ba mën a sóob seen loxo ci mbir mi Dakar Times naan kon Sénégal ñaan rafetlu moom moo di taxawaay gaynde sénégalais yi ca kan ba altine gii war a nekk final ci ñoom ndax suñu diggante Côte d'Ivoire pays organisateur bi lay doon tribune sport naan kon en attendant moom Aliou Cissé ak Lamine Camara daal dina ñuy am seen trophée ci coach bi mën ak joueur bi gën a ndaw bi gën a xarañ tribune sport naan man ca coowal fan zone la it global comme daal dinay rëppatal RCS ak SD consulting yoon daal dina koy xamal ne fan zone fu ko waay neex samp kenn moomu ko juge bu référé ya daal di xamal alimaane ko fu neex mën nga faa samp sab fan zone ci réewum Sénégal tribune yéene kaay rayante gaa ngi mel ni tulleeg maale benn xaleb kat moom la nu daal di rendi ca caaroy géej mu daal di faatu ci saasi askan wa daal di dal ca kaw ka nga xam ni moo ko faat daal di koy faataat délégué de quartier ba nga xam ni moo ca doon opposé wu ne kenn du ko faat ñu daal di koy sotti essence ne ko booy wax yow it ñu faat la ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm